ndax yaa xam lu la naqari sa sëy dama la koy respecteel waaye booy tas na rafet loolu la alxuraan digle surtout koo xam ne daf la jël dugal la ci lislaam fekk la fam la fekk yow xam nga fi la door a fekk xam nga ni mu la fekkee xam nga bi mu duggee ci yow fi mu la ni mu la def xam nga yow ñaata million nga jëriñu ci alalam kereg bi yaay doora di jooy ne su dee moo jur doomam yal na leen yàlla taqale ci jàmm tey yal na la akam dal bés boobu da danga da fàtte ne yaay yaay rek la da ko fàtte jëkkër ak jabar bu mu mën a doona ñu nekk ci jàmm ak ñu nekkul ci jàmm li ñu war a gën a moytu mooy suma àq na la dal àqi jabar fu dalee jëkkër mu dem safara àqi jëkkër fu mu dalee jabar mu dem safara ndax dafa sew dafa xat sa jëkkër demoon bay waaj a daanu nga wàcc àq boobu daanu bu fomm bi su ko yàlla jéggalewut du baax te te yenn saa yi jigéen sonn ci kawleel ba mën a tuta àttan dalay puus wàcc fekk yow yaa ngi doon yëg neex-neex boo xam ne bu la mayoon trois minutes nga egg ci oh waaye danga koy mujj perte ñàkk ko àq dafa sew Togal sa jëkkër mu am kaane mënut koo lekk te dafa xiif dënam bi di lakk bakkanam bi di lakk àq boobu rek doo ko mën a bàyyi xel yow ngay wër naan sa àq yow moo dal dooro waa considéral àq bi nga tàqale yi dooro ak door ba mënta am lu ko neex ci doomam considéral mbokki dooro yi nga tàqale ak door considéral aawa bi ko doon sëyal bi dara doonu dara ñu am ay doom ni nga ko tàqale ak door considéral tey bi mu nekkee ci jafe-jafe yow soo génnewoon li nga war a génne du yegg fii juróomeel ba xam nga mooy la Clara wéetal nga toog sa diggante ak yàlla ñaata jalan ñaata tuur ñaata sëriñ nga yóbbu turi dooro gi ñaata yoon la lekk lan ak lan maa ngi su ma la ko waxee gëm ma dua wax mais ñaata yon nga sul ñaata yon la lek, ñaata yon la nan, ñaata yon nga def Yoy yeb mën nen la ko nangul ci jigen bu bëgg sey way bo boo ba am sa nak bo le ko ay mbokam ya xeyti. yow xam nga ne yaay chef. mais doxal doxinu jigen bu bax. te am na foo xam ne boo fa yeggee nit mu wan la ginnaaw rek du gor c'est pas le bon moment pour bàyyi dooro keroog bi ngay ànd ak avocat di wuyu ji xamoo woon ne danaa ko yëg xamoo woon ne tey àdduna bi ko yëg dinañ ko yëg bi muy yëkkati xaalis pour jox kalaara ngir mu eh, eh, rakki pour mu dund parce que jabaram la boo doon ko baax danga war a nangu xam ne yow li nga am kala rakki amu rakki moo la gën a tooy moo la gën a neex moo la dàq gën la nekk xale yaa ko palmarès ci réew mi moom mu nangoo toog ci ron doon takk suuf yow nga doon ci kaw di jale jaabe lu la neex waa gis nga su ma bàjjan ajaratu ndey siise yal na la jéggal yokku leeram te yërëm ko mu ne as gor bu ñu takkee nag ci bunti kër gi na la sa ndawala ngi ne le lii sa añ la mu ne bu la doyul bu ñu ko toggoon ba mu ñor du la doy li nga am ci Doro Gueye xale bu la gën a tooy ëpp gën la rafet gën la neex rek ay dara nango doon takki suuf yow nga feus ci kaw li bu la doy dara do la doy 5 millions biñ ko jox tax nga saga sa jëkkeer ci biir kasso té pourtant xaliss bobu seen morom ko indi de muy khadija touba awam bi nga xamné ne ko bëmax génné ko ci biti signé yow kenn ne ben jabar nga mëna am di ko ci réew mi di ko doxal demal luqman waxon